suñ dëkk Sandiara euh, di yëngatu ci secteur privé bi di chef d'entreprise di yëngatu euh, ci les produits halieutiques c'est-à-dire euh, on fait de l'exportation et importation waaw njàngat bi ma ci def mooy mu ngi doog am ci Sénégal ñun secteur privé bi ñu kontaan ci loolu dafa mel li, lii ñun la ko ministre bi defal li ma doon xaarandi daanaka xel dal na ci parce que ay borom xam-xam ñoo fi dajé ñoo wax ñu dégg leen ay borom xam-xam ñoo joxe ay solution kon nag xel dal na am nañ yaakaar ci ñaari fan yi liñ fi waxtaanee daal dina am. bon jafe-jafe privé yi wax nañ ko sànq benn mooy boo xoolee secteur privé bi euh, état da leen xawoon seetaan c'est-à-dire duñ leen accompagner ni ñu leen war a accompagner maanaam tey boo demee si si côté finance ñun bu ñu soxlaa. ay préfinancement si banque yi dañuy subir dañuy sonn dañuy laaj ay garantie yoo xam ne ne tey duñ ko mën a am te dama yaakaar ne tey secteur privé euh, nga nekk si si ci moyenne entreprise bu ndaw bëgg jóg buñ la bëggee jàppale duñ la laaj yenn garantie yi cest à ñun am nañ jafe-jafe yooyu maanaam tey bu ñu bëggee ay fonds de roulement yoo xam ne tey banques yi dañu ko waroon yombal wala état euh, appuyer ñu si banque yi subventionné ko pour au moins ñun financement yoy mëna a yomb mën ñëw ci ñun mais dal jafé jafé yoy benn moy les les financements am nañ problème bobu tay bo wéré wut sa sa local par exemple nga bëgg a defar sa usine jën boy transformer ci a des difficultés tay pour am sax terre bi manam bi am espace bi nga ko def lool aussi am ci compte vraiment euh, avec le ministre du commerce et de l'industrie, amnañ ci mom yaakar trop. te moom xam na luy secteur privé xam na ne tey bu bu dëkk bëggee développé ci commerce ci industrie ci secteur privé yi ngay njëkkee moom daanaka ñun si si ci lii ñu yëngatu moo ñu si formé moo ñu ci tette tey ba nga xam ne ne euh, am nañ ci as tuut luñ si téye ba créer nañ si ay emploi moom moo ñu formé ministre commerce bi moo ñu formé moo ñu jàngal nan la ñuy développé société nan lañ développé entreprise